3S Pro. jërë ngeen jëf mbokk internet seen lamb TV mbokk yi ñu bu baax a baax ak contentement ñu jàkkaarloo te génn mbokk comme ni leen ko diggee rek si weeru koor gi dañuy xool li nga xamante ni moo leen di bëggal waaye dañuy xool li nga xamante ni suñ ko defee di ngeen si gis seen bopp ñi ñu gis seen bopp li ñu mel nag moo waral tey ñu ñëw fi nga xamante ni mooy ginnaaw raay certifié ki nga xamante ni kenn la si ñin ki nga xamante ni suñu doyen la si métier bi waaye ki nga xamante ni yoon bu ñuy jaar muy Baye Balla Mboup le griot du peuple moom la ñu fas yéene dalal fas yéene siq ak may sori si waxtaan bi danaa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, suñu mbokk bi nga xamante ni moom la fi yaayam bàyyeekoo tey bokk si ñun di sos sos soosaat borom dóor dóoraat mango garga mboose ñoom la fi seen yaay bàyyeekoo tey ñu koy jàll euh, ki nga xamante ni mooy sos waaye di koy jàll ki nga xamante ni mooy képp kuy mbër ñoo ngi lay jàll ak ki nga xamante ni mooy euh, suñu yaay jooju bàyyeekoo fi tey ñu koy jàll axul làmb yëpp di ñaan yàlla suñu borom bi yéen loxo yàlla suñu borom yërëm te jégal ko si bàyyi fa del tey sa waay lay jël si waaw def delloo ko mbatt condaal waaw yow lii moom yaa ko mën a am ah mais di la dalal jàmm di wax gis na liggéey bi mi ngi rafet macha allah di rafet lu liggéey bi di nuyu sa cadreur mais nag tey seet ko xam ne c'est un monument yow mi seet si tey c'est de mais sëriñ kenn du yow daal bi sëriñ Babacar et puis bisu laytu xadar waaw gis nga ah seet si baay bala ah ci di seeti ñi di leen jàppale di ci def di ci def kéem talaay kàttanam waaye nag rien n'est hasard mbaax gi ak jom ji daf ko donn waaw waaye nag lu waay def ci lu baax jàppal ni sa bopp nga ko defal waaw xam nga li li li la wolof naan tombee waral ay gaaf waaw dafa dogal ni yàlla dafa dogal ni yow waroo ñëw fii jël ma te doo gis Fadel Niang parce que man ak moom kenn la nu yàlla lool la yàlla dogal moo ñaani sama soxna maa ñaani soxna waaw yàlla moo nu boole sëriñ nit ku baax temps amul maa ngi ci aide d'activité sociale yi enveloppe yi bi séddale ci laa nekk nii mais enveloppe yi nag xam nga ñu ko tax a jóg mooy mooy mooy malaatu Dakar Buzz yi ñi néew doole actuellement ci laa nekk nii mooy ñi feebar tëdd seen kër ñu leen jox enveloppe cinquante mille ci la nekk nii comme temps amul baal ma dugg xool benn yaay booy boo xam ne doo leen bëriwut jox ko ko ci rek nga bàyyi la nga doxal ak sa waay jeex na mi ngi noonu macha allah yaakaar naa badu licence la ñun ko am ah, Fadel di nit ku baax naka askan bi jàppale naka gars yi ñaanal ndaxte macha allah bi ñu ko ràññee ba léegi su lu baax lañ ko xamee comme ni ko Baye Balla mu waxee waaye mbokk yi dañuy waxtaane yi ñaari mbër yëpp am nañ date yaakaar naa bu ma juumul barki dem ba CNG na li nga xamante ni mooy date bu ma juumul bu ma juumee aussi Baye Balla yaakaar naa tey den ma gàntanti jox leen date bi nga xamante ni mooy date exacte bi nga xamante ni Ama Baldé war na ko bëree kii di Gris Bordeaux waaye na xamante ni mooy Modou Xarañ Lo mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar bu baax a baax di nuyu Abo suñu patron ñoo ngi koy béggee di nuyu Toumani Mbaye Tëldo ak ki nga xamante ni mooy Serigne Diour sama waaja Jibril Wade doomi Dakar la waaye mi ngi France ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax Baye Balla maa ngi am contentement ak di la dalal di la nuyu di la ziar internet bi. jërëjëf maa ngi lay maa ngi lay fay bu baax a baax sama rakk ji di la xamal ne tey nag am naa mbégte mu rëy nag ndax nit moom ku ko yëg rek la am fi nga jóge Liberté 6 ak fii ma dëkk ci biir ginnaaw raay am na distance waaye nga dox ay jéego ñëw seet si ma waaye tey fekk si nga ma sama fief tey sama fief fi nga xamante ni fii laay tiitaroo fi nga xam ni fii laay sagoo. muy ginnaaw raay fii laa yeewoo fi nga ma fekk tey fekk si nga ma fekk si nga ma ci Pikine gi ma dëkk gi ma yeewoo ma am ci fierté am ci mbégte ah di di santaat yàlla di julli ci yonent bi ah, di julli ci bi di wax rek alhamdulilahi rabbil alamin ndax sant yàlla rek moo nu war waaw ndax li tax sant yàlla war euh, war nu waykat ba dane woon alhamdulillahi sant war ndax jàmbat gi fi war ab jullit fekke rek moo ko ko teg bu ko fekkewul woon du ko tal ba di ko jàmbat kon moo tax ñu waral wax baatu alhamdulilah di sant fu nu toll di la nuyu di nuyu mbokk internaute yu seen làmb TV ah di nuyu réew mi di nuyu biti réew ah di nuyu suma suma yaay suma wayjur wu jigéen maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ci wér di ñaanal sama wayjur wu góor sunu borom xare ko ca àjjanay firdawsi si ci daraja yonent yàlla Muhammad ndax bis ni tey laylatul xadri tiijaan yi dañ ko dañ dañ ko def weeru koor la woon ca ëllëg sa mu génn àdduna kon suba moom mooy ñaanam mu tombe maa ngi koy ñaanal suma baay ba alaaji Njaay sàmm mbub yal na yàlla suñu borom yërëm ko te jéggal naa si biir loolu sax la ñuy annoncé benn décès bi nga xamante ni ñoo ngi koy yëg léegi léegi yaakaar naa muy génnu àddina ki nga xamante ni mooy yaayu Zos Zos bokk aussi tamit si njin di mbër bi nga xamante ni macha allah si show bi mbër bi nga xamante ni si baax bi mbër bi nga xamante ni si fulla beeg fayda bi waaw Zos ndeysaan loolu dañ koy jaale axlu làmb gépp ginnaaw buñ ko jaalee Zos jaale ko Garga Mbossé ah Garga moom tamit ma nga ca néegi Amérique nekkoon un très grand champion am lu bëri loo xamante ni def na ko fii ci làmb ndeysaan ah nekk ndaanaan tàkkusaan bu ne mu bëri ko ah bés ba mu mujj bëree keroog bàkkoom ba moo yëkkati amateur yëpp ndeysaan moom Garga Mbossé ñu ngi leen di jaale seen wayjur wu jigéen woowu ah di ñaan suñu borom bi dara tëwul yàlla na leen dëddoo jàmm vraiment di ko jaale axlu làmb gépp di ko jaale Zos tamit un grand champion moom tamit ñooy koor gi waaw comme ni ko ñëpp di dundee rek. waaw comme ni ko ñëpp di dundee xam nga koor gi moom weer la woo xamante ni sëriñ bu la bu la rëccee. déwénati waaw koor gi moom sawaa yaaram. liñ koy dundee mooy. koor ko rek. ñaan yàlla suñu borom mu may nu wér ak wér le may nu kàttan gunu ko woore te di ñaan suñu borom mu def jàmm ci réew mi. di ñaan suñu boroom mi dara tëwul mu defal jaam ñi tëw féex. tëw féex mooy dem doon doon wuti dara. far dajeeg moom waaw lu ñu mën a am nag jàmm moo moonu ko gënal waaw ni ni ni ko ñëpp di di di dundee rek noonu laa ko dundee di ñaan jàmm ci réew mi yal na yàlla def jàmm ci réew mi mhm. waaw mais wéeru koor ak budul wéeru koor bay baax la mois yi lan moo leen différencier non weeru koor weeru koor gisoo atmosphère bi ni muy mel gisoo dëkk bi ni muy amee tawféex gisoo dëkk bi ni muy seddee ni muy tranquille ah ñëpp yem ñëpp yaru waaw loolu am na lu ci yàlla suñu borom nam loolu nag da nga ciy profité. bul ko yàq mukk weer wii weer wii. laay la non weer wii yaaram du ay du ay fo dooy caaxaan rawatina fukki fan yu mujj yi wallahi azim lépp a ngi ci waaw weeru yërmande la mhm. weeru njéggal la mhm. weeru tawféex la mhm. ku la tooñoon na ko jéggal te yàlla rek tax lillaahi wax dëggu xaalisam koo tooñoon na ko jéggal hmm. am na solo si biir loolu ñuy duggee si li nga xamante ni yaakaar na uh, moo ñu fi tax a tey ñu toog muy actualité Ama Baldé ak Gris Bordeaux lañ koy njëkkee hmm. yaakaar na Ama dafa waroon bëre kii di Modou Lo yàlla def Modou Lo blessé hmm. ba déposé li nga xamante ni mooy certificat de guérison après fekk Ama Baldé Gris Bordeaux seen combat taxaw na moment bi may wax ak yow nii yaakaar naa Ama Baldé aussi dafa blessé woon mais nga xamante na ko au niveau mm-hmm. waaw li ma ci mën a leeral mooy d'abord damay euh, damay damay encourager ki nga xamante ni moom mooy euh, mm-hmm. ah damay encourager ki nga xamante ni moom mooy euh, Ibrahima Diop mm-hmm. ndax Ibrahima Diop ku ne xam na ni bii mooy deuxième deuxième journée boo xamante ni bu ko organisé rek day yàqu. moom Ibrahima Diop. waaw day day maanaam day jël ay millions def ko ci journée mu yàqu te loolu dafa metti waaw moo tax maa ngi koy encouragé bésam ba Maama Lamine ak Garga 2 ah Garga gis nga bés boobu bés boobu daf ko waajal ba le jour du combat gis nga ni combat boobu mujjee ah Mama Lamine double moteur gis nga ci combat bi la ñu waroon bëri 5 février moom dafa jël cinq grands combats bëggoon ko jox amateurs yi le 5 février bi passé gis nga ci diggante bi Ama Baldé am blessure am blessure ñu ñu ñu ñu aj combat bi ba jusqu'à nouvel ordre léegi nag Ama Baldé dugal na guérison Ama Baldé lañ doon xaar moom la CNG de lutte bi doon déglu pour mu dugal guérison parce que dañ ko mayaatoon yeneen 14 jours yoo xamante ni su fekkee Ama Baldé ci diggante bi moom wérul non dañuy libéré Gris Bordeaux mu dem jëli beneen beneen adversaire léegi Gris Bordeaux keroog bi mu ñëwee ci sunu plateau gis nga li mu wax dafa leeral nee na moom toogul fii di xaar Ama Baldé toogul fii di xaar kenn Ama Baldé day mën a ñëw ñu bëre bu mënul mu dem seeti beneen adversaire parce que amoonul temps bu ñuy perte comprendre nga avant 14 jours yi Ama Baldé dem dugal guérison léegi looloo waral tey diggante Gris Bordeaux ak Ama Baldé suñu boom dogal na ni CNG de lutte bi utal na leen date le 9 juillet la ñu war a bëre le 9 juillet. le 9 juillet Gris Bordeaux ak Ama Baldé Ama Baldé nag euh, ndeysaan dama de jël na ñaari combat yu doy waar. lu xew li xew mooy ñaari grand combat yu mitti lay préparé. dafa jël euh, Gris Bordeaux le 9 juillet. boo jógee ci juillet juillet août septembre octobre le 29 octobre. waaw presque deux mois trois mois bu bëree ba bëri. le 29 octobre moo war a bëri ak ki nga xamante ni moom mooy Modou Xarañ Lo. 29 octobre moom Modou Lo. 29 octobre moom moom Modou Lo. ah Ama Balde si kii de. non Ama Balde waaw parce que lamb lamb moom moo demee noonu. Mm-hmm. li ko indi nag moom mooy blessure. gis nga mm-hmm. mbër xam nga mbër yi xam nga mbër. Mm-hmm. wax dëgg yàlla loolu moom nit mënu ci dara. sportif. boo gis. surtout sportif au niveau nga xamante ni ñoom dañu gëm entraînement dañ ko fonk. moo ñoom ñoo ànd ak blessure. boo demee ci football bi léeg-léeg nga dégg ñu ne la ah Sadio Maana am na blessure ah. di léeg ñu ne la Salah dafa am blessure te pourtant ay sportif au niveau lañ xam nga xam nga tey sportif bi ki nga xamante ni tey moom kii làmb ci la yaakaar gañ peewam kii football bi ci la yaakaar gañ peewam kooku bu sañoon du blessé comprendre nga Modou Lo préparé na combat am ak Ama Baldé dem ba ci biir mu blessé mais loo ci man mais dafa blessé dafa blessé te Modou Lo la champion la du yàq lamb du yàq katu dañuy taxaw ci Ama Baldé ak Gris moo juste loolu parenthèse bu ndaw la woon la waaw parenthèse waaw am na solo macha allah dañuy taxaw ci Ama Baldé ak ki nga xamante ni mooy Gris Bordeaux hmm. nekk mbër bi nga xamante ni day attaqué hmm. ndax bakaar bi foo ko ñett wees na ko mhm. Ama Baldé nekk mbër bi nga xamante ni aussi moo tamit du xaar mhm. Gris Bordeaux Ama ñoom ñaar bay baal waaw ñaari attaquant la yaa ko wax keroog Gris Bordeaux dama ko laaj dama ne ko jël nga xale boo xamante ni dafa doy waar nag mhm. waaw liw tuum ak njaabam dox wut si adversaire am mbër yi ko antam bariwul waaw Gris Bordeaux ne ma Ama Baldé amul sens ci combat bi <laughs> waaw loolu la wax de la mu wax nag am na fu mu ko teg waaw ma wax mi ne ma non Ama Baldé amul amul sens ci combat bi amul ci sens mhm. ma ne ko yan raison moo tax nga wax loolu parce que mi ne ma parce que li mu bëgg moom la Ama Baldé mën muy attaqué saa bu arbitre sifflé de dox ñëw ci man mhm. man loolu leer na ma kon Gris Bordeaux ce qui veut que ni loolu mhm. jàng na ko ci Ama Baldé xaw ma nag ndax dana ko arrangé xam nga Ama Baldé day day mbër mu naqaree natt waaw doo ko daj non boo ko xoolee ci digganteem ak euh, Malick Niang keroog esa esat Demba Diop mais lamb jooju mais Sénégal yëpp Malick Niang lañu joxoon favori ne Malick Niang bis bu jàppee amaa Baldé dina ko duma dina ko daan comprendre nga mais Ama dafa ñëw indi beneen wane leneen leneen la wane ñëw xeex ak Malick Niang moo tax mbër mu naqaree natt la Ama Baldé mais xam nga tax Ama combat bi nar a metti ci moom. moom li tax mu nar metti ci moom laa la wax. parce que Gris Bordeaux combat bi mooy last combat ci face rek moo koy arrangé moom gagné kase moo koy arrangé non bu gañewul Gris bu gañewul mooy loolu. non bu gañewul day wàccaat ba ci suuf. parce que xam nga Gris bul fàtte ni il est le troisième tigre de Fass. comprendre nga giri uh-huh. moom moo doon Mbaye Gueye te Mbaye Gueye am na lu mu def biir Fass mm. moom moo doon Moustapha Gueye Moustapha Gueye keroog bu ñu koy tuddee mm. le tigre de Fass dafa am lu mu wane woon biir Fass xam nga giri moom tamit am na leneen lu mu bëgg bien vrai que ni keroog ba muy bëreeg Bombardier am na fa ndam loo xamante ni ak lu lamb dootuñu ko fàtte moom Gris Bordeaux yàgg naa indil ndam lu rëy yàgg na ko indil waa Fass mm. xam nga mais ñun Sénégal ñoo baaxoo loo xamante ni ñun pour ñun nit maanaam sa mbër gañe rek la war di def warul di daanu loolu du àdduna comprendre nga il faut ngay sóor ni ni nga am ni nga am ni ngay amee ndam noonu la bis di ñëw nga am nga amee noonu defe comprendre nga mais gri Bordeaux boo bëggee dégg dëgg combat bi mooy laas combat comme moo tax ma ne la day metti ci Ama Baldé parce que Gris Bordeaux combat bi daf ko jaral lu ne face combat bi daf leen a jaral lu ne parce que face quoi qu'on puisse xam nga ni face mooy làmb nag face nga ne Mbaye Guèye Fass nga ne maam góor gi faas nga ne Moustapha Guèye Fass xanaa xamoo ñoom bu nu bu nu defee nii perkati Diop mais yow yow yow dama ne xoola maanaam Fass bu Fass bu nu suudewoo non booy mën leen ci làmb du yomb Fass pikin parcelle Géejawaay ñii bu nu suudewoo laa la wax noo nga mën leen ci làmb du du yomb du yomb. lu mm. garaaw laa lay wax. Mm. léegi si biir loolu Baye Bara dañu gis Ama Baldé bari ci démb. mu ni moom lenn rek lay laaj ñaan Gris Bordeaux na loxoom jóg. Mm. saa yu loxoom jógee dootu ko defati. waaw xam nga stratégie la nag. lamb di combat dina toll foo xamante ni bataille psychologique day am. waaw mais Gris Bordeaux xam nga ni moom foog loxoom jóg. Gris Bordeaux mës nga gis bëre comme mës nga gis combat bu mu bëree est que. mais amaa Baldé est-ce que loolu muy wax arrangé na ko. Hmm. arrangé na ko moom Ama Baldé. waaw loxo Gris Bordeaux bu jóg. Hmm. non est-ce que arrangé na Ama Baldé. non non Gris Bordeaux buy door day xool fu muy dóor. Gris Bordeaux du dóor di laawu de. xam nga yow ki la arrangé yow Ama Baldé mooy kii dóor di laawu. Hmm. moo ko moo la arrangé mais kii dóor di la xool. les yeux dans les yeux dans les yeux. nga xool ko mu xool la mu jam nii non man ak yow ay wax de Gris Bordeaux laa lay wax. dàq ko xeex ci làmb yombul de sëriñ làmb laa lay wax. Gris Bordeaux ko xeex ci làmb yombul moo tax Ama Baldé bu ne moom lan lay xaar xaar loxo ba loxo loxo loxo loxo Gris Bordeaux mu jóg ano ah non vraiment. waa xam nga Ama mooy li ma la wax rek booy Ama nag mbër la moo xamante ni wax dëgg yàlla boo bëggee dégg dëgg tey li ko indi fii. jom jom ji la ak fit wi de. bésam ba ak Malick ñaaw wax naa la ko léegi bésam ba ak fëga la da nga ko fàtte bésam ba ak guy gi daanu mel ni yaa daan ah nga bëri guy gi bëri bu métti bëri ba daanu stade bépp jóg bésam ba ak nees donte mu def fa daanu moom champion la moom Ama Baldé comprendre nga Ama Baldé jóge foofu tournoi de tournoi TNT bi mais tournoi bi mu dugg tournoi boobu dara gënu ko woon metti boobu dafa doon ñëw risque la fa doon duggee dafa doon ñëw pour bëreeg ki nga xam te mooy guy gi revanche bëreeg jos foofu bëreeg tafatin tafatin ku ko ñemee ci jamono yooyu kan moo ñemee jël avance sam ah moo tax Gris doo tamit am na avance woo xamante ne du ko yàqale waaw ndax ah, bésam ba ak Papa Sow danga koo fàtte ah Ama Balde ah amitié stade de l'amitié waaw parce que moom xam na ne papa moom bu papa moom day yàgg rek waaye dalay bët waaye Ama Baldé loolu daf ko teel a keroog bi ko ab bi ko papa bëggee bët da koo mbaar ca kaw. léegi si xale bi nga xamante ne champion nga xamante ne toog na 6 ans bëriwul. est-ce gisoo tamit mën na perte repère si làmb ji affaire yooyu. non est-ce que na perte repère ah non je sais pas moi mais parce que bul fàtte moom Ama Baldé ñi ko yor ay champion lañ yow tamit. Abdou Bakhoum yow tamit. ah dafa xam na làmb xam na ni làmb di fonctionner waxuma sax ab baaxum ab baaxum manager la rek mais Jules Balde magam ah du du du ngaaka ci làmb du cuune ci làmb xam na ni ñuy préparer bés bu mat xam nga Ama Balde mënul perte repère ci làmb quoi waaw ah, bu nu waxante dëgg non non la ilaha illallah moom ak Gris Bordeaux bis da koy dàq xeex yow tamit doo ba du bëri gan bisoo non non ma comme stratégie boobu mu jox Gris Bordeaux ne ko sa loxo laay xaar mu jóg ma ñëw mais Gris moom tamit dafa yor beneen stratégie boo xamante ni daf ko war a bëri ak Ama Baldé mhm. parce que Ama Baldé gars yi gis nañ ci moom loo xam ni mhm. Ama Baldé mu arbitre sifflé mu ne nii wax naa la ko léegi raam dox wut si la non loolu boo amul repère boo amul fit non doo ko fa xaar waaye Ama Baldé mhm. na moytoo juum ah Gris Bordeaux du du du kuy laaw mm. Gris Bordeaux day jam. Mm. lu garaaw laa lay wax te ku Gris Bordeaux. Mm. te ku Gris Bordeaux bu dal. bu dal laa la wax de baaxul ci Ama Baldé. léegi léegi ah, ah, léegi dans tout ça léegi Ama Baldé nekk moo tamit xale nekk si yoonu làmb. mais bëri Gris Bordeaux comme li nga waxee léegi risques yu si nekk jafe-jafe yu si nekk. tey boo doon yab Ama Baldé yow ko indi stade noo koy yabee. non Ama <laughs> ndax am na ñu koy yab. ah dëgg la. waa xam naa conseil la mais man franchement xam nga. bon man su suis mal placé pour yëpp euh, Ama Baldé wala Gris Bordeaux Ama daal man su ma ko doon yëpp comme comme li nga wax comme conseil la mooy ndox du bàyyi yoonam de waaw man du ma mais Balla la ko daan may ndam ba léegi da koo baax. bàyyiwu ko de. mi ngi koy def di am ndam wala mu daanu rek. mais moom lay def. nit du bàyyi yoonam Sa cees li koy mbay ndam da koo baax. ah non na na li koy may ndam moom Ama Baldé na ko def. Gris la koy may ndam. xam na ko na ko def. mais nan la woon bëre si